les exigences des avocats du leader de la confrontation Socé. waaw loolu moom mooy lañ bëgg ñoom parce que confrontation bi suba la. lañ li ñu demandé woon doyen des juges mooy ñu déglu Mamour Diallo ak Baye mbay Niass MC waaw parce que Baye Mbaye Niass MC daf fi taxaw def sortie mhm. ne moom am na dossier bi xam na ci am na ci lu leer nañ que voilà. parce que waxtaan naa ak Adji Sarr Adji Sarr taalibeem la Mamour Diallo aussi turam feeñ ci dossier bi. Mhm. moo tax les avocats de Sonko sàkku ci le doyen des juges mais mu déglu ñooñu balaa ñuy def confrontation bi léegi nag est-ce que doyen des juges dina leen ko nangul wala wala déet je ne le pas yaakaaruma ko comme déjà moom programmé na datu confrontation muy suba mënatul nekk loolu mënatul nekk. et dama jàpp ne gis nga li li ñu doon wax ci assemblée rek mooy problème bu amee nga xool ban solution moo gën a gaaw gën a yomb pour saafara mbir mi tey mënoo ne da nga bëgg leeral benn dossier parce que instruction boo ko ubbee beneen enquête ngay defar rek ñu ne la diw mi kat am na lu mu ci wax ci dossier bi diw mi yaakaar nañ ne am na lu mu laale ci dossier bi bëggoon nañ nga déglu leen mais déglu leen lu mu lay wàññi. tuus ñebe. wàññiwu la dara. wala nga déglu leen ñu wax la li ñu xam ci dossier bi de toute façon yow après yow yaay yow yaay choisir li ngay def soit da nga koy dangay am da def non lieu classement sans suite wala nga yóbbu dossier bi tribunal donc li avocat yi demandé doyen des juges pour man mënoon na ko def parce que wàññiwu ko dara lépp loo xam ne war na mën a contribuer à la manifestation de la vérité kay xanaa war nañ war nañ war naa mën a am balaa ñoo toog ñoom ñaar confrontation kii di wax kii di kii di doon après moom mu xool lu muy def bu ñu nee la diw mii wax na ci loo xamante ne yaakaar nañ ne am na ci ay information yoo xam ne war nga koo déglu war nga koo mën a def léegi nag di tax defu ko aussi xëy na moom wàllam la mais dans tous les cas loolu daal moo nekkoon les exigences des avocats de mhm. léegi nag est-ce que Sonko dina dem suba ou pas aussi c'est ça la question confrontation bi c'est su suba le 6 defe naa. Mhm. waaw mais diggante tey ak suba daal dinañ ci am lu leer loo xamante ne ndax. doyen des juges dafay nangul les avocats de Sonko seen ay exigence mooy déglu Mamour Diallo mi turam feeñ ci dossier bi ak kee euh, sëñ bi ñas mbaay mbay MC wala ndax day ndax day dem directement ci confrontation bi mu convoqué suba mais dans tous les cas daal c'est un dossier boo xam ne vraiment jot na pour ñu yeewi ci sénégalais yi mm. passer à l'essentiel parce que nag dossier bi mënuñu fi nekk ñu koy traîner loo ba mu ëpp at mm-hmm. ëpp na at bii dossier ëpp na at te souvent nag dañuy yëngal dossier bi ci contexte yoo xam ne aussi ñi naan affaire bi dañ koy politiser aussi ils ont raison souvent parce que mënuloo bàyyi waa ji di traîner ba mu tàmbali ay nemmeeku tuuram commencé di wax ak askan wi nga ne ko kaay ñu mooy lañ defoon xalifa Sall rek Khalifa dana bërëb dugg ñaay bi na Macky defoon Macky woo ndeysaan dem si yàlla tanoor kon non waxal booy bi. daf ndànk quoi booy bi lànk Khalifa Sall mi mu lànk continuer luñ def dem ville de Dakar génn fa ay affaire topp ko tëj ko ci kaso bi ya xañ ko immunité mais mhm. gëm gëw ma ne loolu nag dinañ ko réussir nag ak Ousmane Sonko yaakaaruma ko bu amee aussi gëw ma ne loolu dinañ ko réussir donc suba. ñu ngi xool ba xam entre tey ak suba ndax doyen des juges day convoqué Mamour jàlloo déglu ko convoqué Baye Mbaye Niass MC déglu ko ni ko avocat yi sàkkoo bu ñu ko deful it xam ne defu ko et suba ñu def seen confrontation lu ñu ci tukkee nag moom après nag loolu responsabilité doyen des juges lay doon. Mhm. bu confrontation bi pare moom mooy xool nag ndax day classé dossier bi wala ndax da koy yóbbu tribunal ñu àtte leen affaire Sonko Adji Sarr suba lañ leen nar déglu waaye avocat mi nee nañu déglu Mamour ak MC Niass pour euh, soog a mën a nag euh, mën leen déglu ñoom ñaar ñu def seen confrontation. voilà mu ngi noonu je pense que Socé a, a tout dit sur cette affaire là <laughs> xam nga wàllum yoon. Euh, dafa dafa dafa doy waar te dëgg-dëgg bu ñu la joxee ab dossier mu nekk ci sa responsabilité nga war ko àtte du ñu ay juriste on n'est pas des professionnels du métier mais je pense que quand même xel war naa mën a nangu ci koo xam ne danga koo woolu mu ñëw toog nga am ay laaj yoo ko laaj mu am lu mu la ci tontu leneen li mooy mu yëkkati ay document teg ko ci sa kaw table euh, document yoo xamante ne amaana xëy na dafay euh, incriminer ñenn ñi ne ñii ci dossier bi la ñu bokk comme le dit Socé pour la manifestation de la vérité li war mooy tout simplement nga déglu leen ñoom ñëpp loolu sax amaana mënoon nañu ko def sax avant ñuy jàpp li nga xam ne moom mooy datu euh, beneen face fas bi nga xam ne moom la Adji Sarr war a am ak euh, Ousmane confrontation bi il xam ne également euh, confrontation bi c'est dans le cours normal des choses ci procédure judiciaire bi la bokk. Mm-hmm. Euh, comme di soose bu jeexee après ci a xam effectivement décision doyen des juges yi lan la est-ce que dafay classer dossier bi est-ce que daf leen di yóbbu en procès wala qu'est-ce qui va se passer réellement pour la suite de cette affaire mm-hmm. Je pense que Ousmane Sonko est dans une stratégie de. révélation de la vérité parce que xaarul justement pour que justice mën a génne yenn mbir yi pour que mu leeral ko askan bi la preuve bi mu demee euh, confrontation bi bi mu demee ci convocation bi il est parti répondre tout simplement ñibbiwaat ci këram ci ma dara xewul euh, bu mu paree def na conférence de presse joxe li nga xam ne moom mooy point de vue ci mbir mi ni mel maintenant nag demain beneen mbir la parce que coow li bi muy dalee am ba tey ñoom ñaar dajeeguñu Adji Sarr ak Ousmane Sonko euh, te balaa daje gi di am te pour man jaadu na également dans le cadre de l'enquête de ce dossier-là avant doyen des juges di mën a tënk dëgg-dëgg pour voir euh, la suite de cette affaire-là ci fan lay mujjee pour moi la base aurait été ñu déglu ñëpp ñi nga xamante ne ils sont impliqués de près ou de loin ou en tout cas seen ay tour cité nañu leen ci cadre dossier bi euh, pour que moom ci boppam mu am lu ko gën a leer ci boppam ci li nga xam ne moom mooy euh, mbir mi nga xam ne moo jotale Ousmane Sonko ak Adji Sarr maintenant demain on parce que la grande question mooy est-ce que Sonko ira ci ci ci confrontation boobu est-ce que dina dem ou pas mhm. mm, et après on, verra également la suite donnée à cette affaire judiciaire là nga xam ne vraiment c'est une affaire pendante depuis très très longtemps mhm. et les gens ont besoin d'être fixés ci mbir mu ni mel mais lu ñu ciy mënti def rek na bu koor mhm. na dëppoo ak li nga xamante ne moom mooy moom mooy dëgg na dëppoo ak li nga xamante ne également moom mooy yoon ñit ñi bu ñu am benn sentiment d'injustice ci mbir mi ni mhm. euh, il y va de l'équilibre de ce de ce donc c'est une grosse responsabilité qui mhm. au-delà de cette responsabilité judiciaire mhm. dafa toucher ñu bëri dafa toucher tout un peuple donc lu ñu ciy mënti def rek na doon li nga xam ne moom la ci yoon santaane ñoom ñiy jàng yoon xam yoon euh, nañu doxal yoon tout simplement et que voilà ñëpp a atte ba xam ndax mbir a sori wala dañ koy taxawandi fii il mhm. faut que nga am tous les éléments de réponse yi nga xam ne moom nga soxla yépp ci mbir mi donc jaadu na avocat yi un peu exiger à ce que ñu ñu ñu ci tudd lépp d'accord euh, euh,